je, ce que je dois dire, cette journée, elle est d'abord historique. Parce que c'est la journée du 31 janvier qui correspond à la journée des martyrs que célèbre le mouvement étudiant. C'est l'occasion pour moi de rendre hommage aux martyrs du mouvement étudiant, à ceux qui sont tombés pour défendre une école publique et une université publique. Cela mérite d'être célébré. Et c'est l'occasion pour moi de demander encore une fois au mouvement étudiant de construire un mémorial du mouvement étudiant. Mémorial sur lequel on pourra inscrire les noms des martyrs, tous ceux qui sont tombés au de la défense de école publique et d'une université publique. Donc, c'est l'occasion pour moi de réitérer cet appel. Cela dit, nous sommes la lutte commencée depuis pour dire au peuple, pour demander au peuple de soutenir la lutte Parce que ce que nous avions dit, la hausse du prix de l'électricité allait entraîner la hausse dans les autres secteurs et en de se réaliser. Nous, en, nous, nous rendons compte qu'aujourd'hui, le prix de l'huile a augmenté, le prix du riz à augmenté, le prix du lait a augmenté. Donc ce combat, c'est le combat du bas peuple, c'est le combat des familles pauvres, c'est le combat des familles qui n'ont pas les moyens de supporter la hausse du prix de l'électricité. Ces familles-là, ce peuple-là, doit rejoindre Lank, soutenir Lank dans cette lutte. Je dis, nous sommes ici encore pour soutenir Guy Maris Sagna, parce que Guy Maris Sagna est notre camarade, Guy Maris Sagna est notre frère, Guy Maris Sagna est notre parent, et nous disons, l'acte qui nous a libérés et qui a maintenu Guy Maris Sagna en prison est un acte illégal. un acte arbitraire, un acte dangereux qui peut diviser ce pays. Il ne peut pas avoir deux Sénégal. Un Sénégal de groupes comme Guimari Sagna et d'autres Sénégal. Ça peut diviser le pays. Nous demandons au pouvoir de libérer Guimari Depuis quelques journées, nous avons vu que le gouvernement tente de passer l'idée selon laquelle Guimari est un terroriste. Si Guimari est un terroriste, nous sommes tous des terroristes. et nous nous honorons d'être à ses côtés. Et nous sommes fiers de défendre un terroriste comme Guy Marius Sagna, un terroriste qui défend son peuple, un, terroriste qui a défendu les travailleurs du PCCI, un terroriste qui a défendu les petits commerçants contre Auchan, un terroriste qui a, qui a lutté contre la des terres à Tiawanpol, à Taïbandiaï, à Gewandiaï, un terroriste qui a risqué sa vie pour défendre la démocratie, un terroriste qui a osé marcher pour aller au palais de la République pour dire au président de la République simplement que le peuple souffre. Non, cette idée-là ne passera pas. Les vrais terroristes sont ceux qui nous gouvernent. Eux qui utilisent la violence contre leur peuple. Eux qui ont tiré sur Fallou Eux qui ont tiré sur Bassirou Faye. Eux qui oppriment le peuple. Eux qui violentent les prisonniers. Eux qui utilisent la violence contre nous les marcheurs. Vous avez vu la violence que nous avons subie tout à l'heure. C'est eux les vrais terroristes. Mais Guy Marius Sagna est un patriote et le symbole du refus de la jeunesse africaine, de la résistance d'une jeunesse qui, qui, qui, refuse, qui dit non. Voilà, je suis venu euh, avec quelques camarades euh, participer à cette euh, manifestation pour exiger évidemment la libération de Guy Marius Sagna pour que également on arrête de priver de liberté les citoyens qui ne sont pas d'accord avec les politiques du gouvernement. Si c'est une démocratie, le Sénégal, ceux qui ne sont pas d'accord avec les politiques du gouvernement ont le droit de manifester cela. on doit les laisser exprimer leur liberté de manifestation, de marche, de rassemblement, de meeting, etc. C'est ça. il faut libérer Guy et il faut arrêter d'arrêter les, les, gens pour, euh, pour, des raisons de ce type-là. Voilà, c'est ça qui explique euh, notre présence. koor gi salaamaaleykum. wa rahmatulahi. tur bi nan la. man Abdoulaye Mbaye ñu di ko wax commissaire laa tudd. Abdoulaye Mbaye ñu commissaire. ancien délégué personnel. ñu gis nga te benn pancarte retraité nga lan ngay ñaxtu tey. li may ñaxtu bari na réew mi Macky Sall bi bu falee ba léegi dafa tas yaakaar retraité yi léegi bu ci feebar boo demee IPRES dañ naan amatuñu garab amatuñu garab léegi lu ñu am ci suñu wér gu yaram lay yem amatuñu garab amatuñu dara rek xaalis ba fa nekkoon dafa nekkoon dañ ko sàcc dafa sàcc alal IPRES ba pare ñu yóbbu ko jox ko asalam kooku nag sàcc. sàcc ba pare ñu joxaat la feneen foo gëm ne sàcc la léegi ñun dee nañu retraité amatuñu dara nañu wàññi dara te Macky Sall sax dafa waxoon man jot naa lu mat juróomi salaire wu juróomi bulletin de paie retraité Macky Sall dafa waxoon à part ñooñu dañu leen defal 35000 francs mais ba léegi dara amatu ci dara dara dara amatu fa waaw léegi dañu may jàmm te dundal suñu IPRES bi IPRES dara amatu fa amatuñu garabu tension amatuñu garabu tuufaay. amatuñu garab dara ci presse rek euh, moo am euh, kii presse aspirine rek moo am léegi lettre rek aspirine rek moo fa am léegi dictature duñ ko nangu. duñ ko nangu. ay jë. dugalal dugalal. courant bi seet na. ceeb bi wax i noppi. diwlin bi ne gi Mari Sagna. ala moo kasata. ala moo kasata. Macky Sall wat Aïcha analyse bi ñëw na jox fukki dërëm pour mu ñëw kan fi jox fukki dërëm pour mu ñëw dañoo ñëw parce que dañoo gëm suñu pays nous sommes là parce qu'on a foi nation nous disons non comme tout le monde nous disons non à des prix de l'électricité qu'on juge d'abord illégale sans fondement nous disons non nous disons non nous disons non dictateur il est temps de vous. Je m'en profite également, je m'en profite également pour rendre un vibrant hommage à nos martyrs Fallou Fallou Sène Bassirou Faye Balla Gaye Mamadou Diop Omar Diop Bollandé di leen wax ni di wax seen waa famille nous disons à leur famille doon xeex tey ba jël ci seen bakkan tey ay exemple lañ pour cette jeunesse te le combat continue vive les étudiants, vive les étudiants engagés. Nous sommes plus que déterminés et nous allons combattre l'injustice et la malgouvernance. Vive les étudiants. Merci Papa Doulaye Touré. Merci Papa Doulaye. ñu ngi woo le Neftec le Neftec dañ ko jàppandoo woon ak Guy Marius Sagna ngeen tàccu le Neftec bu baax a baax a baax. loolu def tekk bu nitu dëgg dee valeur am na lee def tekk def tekk ayca bismillah salaamaaleykum hey ku bëgg ñu libéré Guy Marius Sagna ñëpp tey jii loolu bokk na ci leen tax a jóg bëgg ñun ñëpp ñu kali suñu loxo def nii gis que pare kër bàyyi kenn nañ si jàpp nit est-ce que pare kon Macky Sall moo ko moom kon libéré libéré tey dañu fi ñëw ngir ñaxtu courant dafa seer xam nañ ni tey jii nii Sénégal kii fayeeku cinquante mille laa am ak ki ne trois cent mille laa am ñoom ñëpp courant bi ci ñoom la gën a métti ka man mii am journée deux mille francs tey boo doon am boo am euh, nga am mois cent mille tey bu ñu yokkee courant bi booy fay courant boo fayee courant ba joxe euh, sa dépense lii lay dese du mat cinq francs kon ñun ñëpp xam nañ ne courant bi dafa cher courant bi courant bi courant bi daa ngeen jëf sama gars yi nañu dindi Guy Marius Sagna si kaso bi parce que Guy Marius Sagna deful li Mame Mbaye Niang def Guy Marius li Aliou Sall def Guy Marius li nga xamante ne ni moom la Macky Sall ak doomam di def teg suñu réew libéré libéré libéré courant bi gars yi lii nag lancement la fi mu ñëwee ñu dem fale fekk ko fa incha allah jaagam jëfat beaucoup. ñu ngi woo Abass Fall Pastef Abass Fall bu Pastef Abass Fall bu Pastef yow la ñuy xaar pour trois minutes Abass ana la ana Abass Fall bu Pastef ana Abass Abass bismillah ay pour trois minutes merci beaucoup frère salaamaaleykum donc Babacar Diop se prépare salaamaaleykum dinañ ko wax waxaat ko mais tey dama bëggoon wax ak sénégalais yi toog seen kër Guy Marius war ñu gën a gore Guy Marius Sagna war ñu ko sacrifier ngeen baal ma mais war ñu nekk des lâches toog suñu kër bàyyi Guy Marius muy croupir en prison dañu ko traité comme un terroriste alors que c'est un citoyen un militant du et de justice nekk fi di défendre les populations ñu toog suñu kër c'est une ingratitude nañ ko waxante ne Sénégalais yi génn si on bu ñu parvenir à à a à à rassembler un million de Sénégalais dans la rue excusez-moi dem palais la République menacé na dem palais la République Guy Marius Sagna sera libéré je ne parle plus de la hausse du prix de l'électricité parce que Sénégalais yi nangu nañ ko mais nañu libéré Guy Marius Sagna c'est tout ce que j'avais à dire je vous remercie. ay Diop Babacar Diop se prépare. Babacar ñun askan wi néew doole. ñun askan wi ñu toroxal. ñun askan wi ñu sàcc suñu alal. dañuy continuer rek naan yàcc ni yasar bàyyi ñoom ñu continuer di ñu néewal doole. ñi bàyyi Macky Sall mu dal ci Guy Marius booba ba léegi lii ba kañ ba kañ ba kañ Sénégal yi dama ni Macky Sall wata wat wata wat wata wat wata les consciences justes sont malheureuses tous les démocrates de conviction sont malheureux tous les démocrates de conviction sont malheureux nous souffrons tous nous souffrons de la situation des libertés de notre, dans notre pays. L'emprisonnement de Guy Marie est un scandale, un grand scandale. L'emprisonnement de Guy Marie est un péché, un grand péché contre le peuple, un grand péché contre la justice, Nous pouvons lire dans la Bible, malheur aux aux auteurs de scandales parce qu'il arrive qu'il est nécessaire qu'il arrive des scandales mais malheur à l'homme qui le scandale arrive malheur à Macky parce qu'il est à l'origine de tous les scandales qui se trouvent notre pays parce qu'aujourd'hui parce qu'il maîtrise une certaine presse ils font passer l'idée selon laquelle que Guy Marius Sagna est un terroriste s'il est un terroriste nous sommes tous des terroristes Si Guy Marius Sagna est un terroriste, nous sommes fiers et nous sommes très honorés de défendre un terroriste comme Guy Marius Sagna. Un terroriste qui a choisi de défendre les pauvres, un terroriste qui a défendu son peuple, un terroriste qui a défendu les travailleurs du PCCI, un terroriste qui a défendu, qui a lutté contre la spoliation des terres à Taïba Ndiaye, à Guédiawaye. un terroriste, un terroriste qui hypothèque sa vie pour défendre les familles pauvres, les vrais terroristes, les vrais terroristes, c'est eux, eux, qui nous, qui spolient nos terres, qui nous ont volé notre avenir, eux qui nous volent nos larmes, eux qui nous volent notre sueur, c'est eux les vrais terroristes. qui, qui est un patriote, qui, qui, qui doit rentrer à la maison, qui, qui, qui doit retrouver sa famille et ses enfants. Merci, merci, merci. merci professeur ñu ngi woo Alioune Seck Alioune Seck bu troisième âge troisième eh, âge eh, Alioune Seck âge ñu wax troisième âge xam nga ni nit na bàyyi sax ci xeex bi la ñu bokk ah, maire yi sax ci xeex bi gàcce ngalaama pay ah, ak maire yi bu leen fat pay am ngeen jaaraama jërëjëf suñu papa yi Alioune Seck du troisième âge Thank you. kooku dem goreel kooku jël goreel ay goreel lay jàpp ay goreel lay bal sonal goreel fii sonal ëllëg sonal gannaaw ëllëg xam nga ne bu dul woon loolu fii ñii sama sët la ñu xaaral ma bopp maa ngi quatre-vingt-six ans kon su ma jógee di wax xam na tax mooy wax xam nga bu leen jàppale wala yàlla dana leen jàppale yéen bu leen jàppale seen tubaab rek la jàppale yàlla may jàppale Le représentant du G20. Le représentant du G20. maanaam ñu daw na yaram maanaam. waa bi ne sànq kàddu yi daw na yaram. tàccu leen ma góor gi waaye. tàccu leen góor gi. 86 ans. 86 ans. teew ci xeex bi. war naa tax ba dara nguur gi dal sa yaram daw. pendant ce temps am na ay aw yu toog ci bopp ko ñu di mel jaay. responsabilité la te am na la. waru ñàkk responsabilité la. yaa tax xam sa ñu lakk ay gala ñu ngoon te loolu wóorul ay ca le représentant du G20 du G20 nous demandons le représentant du G20 ayca yàpp monsieur Dessov Alioune Sané Alioune Sané coordonnateur du mouvement Y'en a marre Alioune Sané le G20 est là le G20 le représentant du G20 membre du G20. E. Donc, euh, monsieur Gambot, le secrétaire général du SAEMS, du, du, du SAEMS authentique, devait être là. Mais certainement, il est en retard. Dama ne gars yi maa fi nekkal G20 e, euh, ci turu Gambot di secrétaire général du SAEMS A nekk nag euh, jiitu G20. E. certainement dafa tardé moo tax ñëwul ma ne gars yi combat bi combat de principe la. parce que ñëpp la woo pour ñu ñëw daal di ku nekk loo mën daan ko ciy def mobiliser ba pare mobiliser askan bi yëpp. loolu wax ne euh, depuis quelque temps njëg euh, yaa ngi yokku les denrées de première nécessité lépp a ngi yokku te li ko waral moom mooy yokku courant bi donc euh, il faut ñëpp taxaw takku daal di. nag ñun waa GV e ñoo ngi ànd ak ñëpp pour ñu libéré ko. jërëjëf ak Christian jërëjëf Malang. ñu ngi woon ak coordonnateur de Niolane. ñaawul bi. Aliou Sané on vous demande. dañu fi nekk ñëpp. Y'en a marre taxu leen a ñëw. FRAPP taxu a ñëw. Gilets rouges taxu SNP taxu leen a ñëw PASTEF taxu leen a ñëw PDS taxu leen ñëw keneen taxu leen taxu la ñëw Sénégal moo leen tax a ñëw bëgg Sénégal mooy bax ci seen xol yi ba tax na samay frères yi ma dégg tout à l'heure ñuy naan au di naan au palais engagement boobu moo bax seen xol injustice bi ñu gis suñu frère gi Marius Sagna di ko subir ñu koy xoqatal ñu ne c'est lui de l'homme de l'année moom un consensus fort autour de ça mais aujourd'hui cet homme de l'année se retrouve injustement emprisonné par un pouvoir par un pouvoir bandit loolu moo waraloon ñu ne au te gaañ li fi nekk li fi nekk comme force muy ay jeunes li fi nekk di suñuy mag di suñuy papa di suñuy maam di suñuy nijaay tey bu ñu décidé woon dem fale kenn mënuñu téye. si wér. tey bu ñu décidé woon dem fale kenn mënuñu téye parce qu'on a cet engagement on a cet amour pour notre patrie te Guy Marius Sagna gënuñu gore. te loolu c'est un message pour le pouvoir c'est le troisième grand rassemblement que l'on et j'espère que et j'espère que et j'espère que pour une bonne fois pour toutes buñ fi jógee tey. ils auront une bonne lecture de ce qui s'est exprimé aujourd'hui. Parce qu'on n'aura pas toujours la même patience. Parce qu'on n'aura pas toujours la même patience, Yannick. On n'aura pas toujours la même patience. loolu mooy la première chose bu ma bëggoon wax la deuxième chose mooy yokkutewu prix électricité bi jaratul sax ma ciy xuus torop ñëpp constaté nañ ko facture wane na ko. sénégalais yi tàmbali nañu sonn déjà mais waxatuma sax yokkutewu facture électricité yi ndax waxoon nañ ko ca njëlbéenu ñoo lan nee nañu ni mbir mi c'est un tout gis ngeen tey ñu ngi naan diwlin bi moo mujjee yokk litre bi jóge na de 900 francs à 1000 francs CFA 1300 ñu ne tonu ceeb bi jóge na de deux cent mille à deux cent quatre vingt mille francs CFA. c'est assez. ñu ne ñu meew mi paquet bi passé na de quarante deux mille cinq cent à soixante mille francs CFA. loolu ëpp na ëpp na. yaa ñu le peuple souffre le Sénégal souffre les Sénégalais sont fatigués. les Sénégalais sont fatigués loolu moo waral nag dinañu wëy ci xeex bi encore une fois li ma wax seen njëlbeen on n'aura pas toujours la même patience l'autre chose mooy di pression bi tare pour une fois à la veille d'une manifestation ñu jox ñu suñu autorisation à 15 heures loolu c'est pas loolu c'est pas nii nii nii rek c'est pas koo gënoo koo mieux c'est parce que sentir nañ ni peuple bi mu ngi fippu et que peuple bi mu ngi mobiliser wu pour que lii mu dàq ils ont eu cette lecture ils l'ont compris et gis ngeen démb le président de la république Macky Sall wuu Macky Sall wuu Macky dictateur Sall mu ngi naan muy naan Sénégal réewu démocratie la est-ce que Sénégal réewu démocratie la. du dëgg du dëgg et ci li muy wax il a parlé de d'autorisation c'est-à-dire ñi bëgg marche il faut que ñu lëkkaloo ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor administration bi. pour que ñu leen di autoriser ay marché est-ce que ci régime autorisation la ñu nekk régime déclaration la li war à chaque fois dañ koy def bu ñu waree marché dañuy marché sànq malal taala ci solo bi teg nañu ay son yi nga xamante ni Talla mi face à ses propres contradictions bi mu nekkee ci opposition bi jël ko Adja baral ñu Macky Sall bi baar amee ba léegi kenn sonnatul baar ko baar baar baar donc damay daal di daaneel rek pour wax ni incha allah nos langues demeurent plus fortes que jamais et qu'à partir d'aujourd'hui on va les sur tous les fronts sur tous les fronts on va les attaquer ngeen ni déjà premièrement am na organisme de défense des droits de l'homme yu mel ni Amnesty yu mel ni Ligue sénégalaise de défense des droits de l'homme yu mel ni RADDHO yu mel ni article 19 am na travail bu am solo bi ñu entamé démb au niveau de l'international ca CEDEAO ca unifor ca ca ONU pour que détention arbitraire u Guy Marius Sagna bi nous dénoncer ko non seulement mais appeler à l'ordre le régime de Macky gis ngeen aussi diaspora bi Paris bi su Paris suba incha allah dinañu mobiliser wu waa Paris gis ngeen waa Bruxelles dem mais bu ñu jógee ci loolu gaañi je vais terminer par dire je vais terminer par dire que notre patience notre esprit citoyen notre sérénité a des limites. Notre sérénité a des limites. Notre patience a des limites. Notre patience a des limites. Le combat va s'intensifier et on va les attaquer sur tous les fronts. Dites-nous les mecs, vous venez de vous sauver. Yangin Dieu. Yangin Dieu. Sama gaay. Masla bi dafa. Masla bi dafa. Masla bi dafa. Eh. ay góor lañu ay sénégalais lañu ñun ay gaynde lañu ñun ay góor yàlla lañu eh, benn yambal mënuñu xañ suñuy droit benn yambal mënul téye doomu jàmbur nañu ko bàyyi masla bi la fa masla bi la fa sunu société yëngatu na sunu société yëngatu na société yëngatu na magnifique taatu Sénégal. sunu société yëngatu na. aja aja aja. sunu société yëngatu na. aja aja aja. magnifique taatu Macky saay saay la. ak di respecté sunu Sénégal. sunu société yëngatu naa. sunu société yëngatu naa. sunu société yëngatu naa. Macky Sall saay la. Macky Sall saay la. Macky respecté sunu Sénégal. il faut que ñu wan ko. lu ñu may Ablaye Wade. duñ ko may keneen. yaa ngeen jëf sama gars yi.